na ci maa ngi koy wax sànq euh, Serigne Niang données mobiles yi ñu dagg ko c'est pas la première fois après interdiction ay moto arrêté te nañu internet bi donc euh, finalement ñun ci ban dëkk la ñu nekk en tout cas. mooy sànq li ma waxoon rek xam nga boo delloo ci ginnaaw tuuti. dafa ay mots yoo xamante ni dama commencé woon di agiter l'espace l'espace politique muy le mot terrorisme gis nga. proprement dit li état bi def mooy terrorisme. bien sûr c'est ça un acte terroriste beneen bi ci top mooy trouble à l'ordre public. Mhm. trouble à l'ordre public li nga wax nii mooy trouble à l'ordre public. parce que en voulant hmm. instaurer l'ordre dañuy créer le désordre. non rek installer désordre parce que ah, ordre bi mooy. oui scooter yi dem fi ñu war a dem. oui oto yi dem fi ñu war a dem. oui nga ne duñ dem mi ngi mel. ndox mi ndox mi nga koy sotti. ni ndox mi nga koy sotti ci kaas bi. waaw daal koy kii muy muy sotti ko ci suuf. xam nga xam nga xam nga dañu jàpp ni mooy li may expliquer dañu jàpp ni dañu ñëw pour créer lord alors que ñoom le désordre la ñuy créer et c'est réellement c'est ça risque de trouble à l'ordre public. risque de trouble à l'ordre public mooy li yoon santaande le calendrier électoral bi nga xamante ni depuis gi Sénégal nekk Sénégal ba léegi depuis 1960 suñu calendrier élection présidentielle kenn mësu ko laal. waaw ordre la nekkoon de. c'était dans l'ordre. ah Macky nga ñëw désordonné ko. waaw ah. te te te boo koy désordonné aussi da nga war a joxe des explications yoo xam Sénégalais bu ko dégg dina xam ne lii moom c'est un motif valable pour que les élections ne soient pas tenues mais mooy li ma wax sànq. amul benn fondement juridique benn explication bu ñu war a mën a expliquer aujourd'hui ne mooy raison yi tax lu dul topp bëgg-bëggu benn nit muy Karim Wade mhm. et je pense que li feeñ tey mooy dil dialogue dil bi ñu yàgg di théoriser fii. bul bul bul may Karim Wade dara ja bu mu amut waaw du ci dara. waaw non parce que xam nga lu daa xaaral ma ñëw maa ngi ñëw. parce que xam nga lu dafa bokk ci ñu déclenché coow li. waaw dañ koy dox. xam nga man dama wax ni temps yële Karim wàdd donte yëkkati nañ ay kàddu dañuy topp ay juge mais en retour ki ñu waroon na topp c'est mais c'est Karim Wade. bien pour faux et usage de faux. daa partir daa fen. Karim Wade avait l'intention de tromper la religion du conseil constitutionnel en voulant être un président de la république en détenant une double nationalité. te xam na ni suñu constitution nanguwoo ko kooku la ñu waroon a topp pour faux et usage de faux parce que il a menti au peuple sénégalais wax ni benn nationalité la yor. y a des wax ni depuis octobre te déglu naa euh, benn responsable bu mag ci parti bi. ne depuis octobre def na ko mais élection 2019 jaar na fi Karim bëggul woon nekk président Sénégal ba pare ñu ne dès que moom dugaloon na depuis de defoon na demande bi conseil constitutionnel dafa waroon jël loolu en compte conseil constitutionnel xamul loolu conseil constitutionnel li mu xam mooy la renonciation définitive kon il faut arrêter de jouer avec les sénégalais il faut respecter les sénégalais. te ci boobu wàll sax keneen koo xam ne am na nationalité. ñu jàpp keneen nationalité dañ koo jàpp. dañ koy jàpp ñu ngi koy déglu nii. ñu ngi koy déglu mooy Rose Wardini kon da ngay xam ni si dil la ñu nekk li ñu def nii c'est un scénario bu ñu teg pour leurrer les sénégalais parce que le président Macky Sall parewul pour bàyyi nguur gi te xam na ni son candidat muy Amadou Ba parewul aussi pour gagner élection présidentielle yi te nag ak lu ñu mën a wax itam. ak lu ñu wax mën a wax itam dem nañ ba toll ci Sénégal bu nga xamante ni mais quand même nañu respecter le droit des des candidats yi nga xam jàll nañ ba liste définitive bi génn ba ñu valider ko. Ah mais ñooñu c'est des Sénégalais il faut respecter leur droit mu ñoom tamit am nañu dëgg tamit pour génn pour manifester ndax lan Karim Wade bokkul ci élection yi léegi élection yëpp nañ ko annulé léegi ñu jotoon a jàll nag te ñu jàng jàll dignement ah, et honnêtement et qui est Karim Wade est-ce que Karim n'a pas de problème ak Macky Sall ni ak avec le conseil constitutionnel il a un problème avec la constitution de ce pays waaw traitement bi la ñu bëgg a xam non c'est problème boo koy ab jox Karim kooku du ci dara marionnette la maanaam lu Macky Sall di dox pion la gis nga boo nekkee di évoquer Karim sax da ngay wàcc gis nga Macky Sall moo ñu yàpp moo ñu tooñ mm-hmm. te moom it moo njëkk a parjuré parce que dafa ne woon je de remplir xam nga fee sax da ngaa déclarer sur honneur mais Macky Sall moo taxaw ci kii devant la nation devant Dieu je de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal se faire observer et de faire observer dinaa wattu wattulu scrupuleusement gardien de la Constitution chef suprême des forces armées yaa war a nommer administrateur civil ak militaire yaa war a euh, sàmm intégrité territoriale yaa mën a sàmm institution yi institution yi yaa ko màppal li mu waatoon mi ngi nii da koo daa partir c'est de haute trahison loolu. te te beneen bi gis nga li gën a dangereux moo am Sénégal. mooy li gën a dangereux. mooy lan. Sénégal xam nga normalement la constitution c'est la loi de lois amul loi bu ko sut kaw mais malheureusement au Sénégal décret présidentiel dafa mel ni moo sut quoi kaw suñu loi. mais da ngay xool Macky Sall day xëy rek jël décret décret yoo xamante ni dafay violer complètement la loi de ce pays fii lañ toog moo tax ma ni le président dañ ko bàyyi muy def di def di def ba yegg si fii alors que à un dañu waroon na taxaw ci dérive yi nga xamante ni mi ngi koy def fii lañ xëy un bon jour Sénat bi nga xamante ni c'est un élément crucial ci élection présidentielle yi Sonko am problème ak l'administration sénégalaise ñëpp xam ni comportement de l'administration comportement bu kenn mënul expliquer la mm-hmm. Sénat jël responsabilité am ay pouvoir am ak compétence yu ko yoon may ne yéen la direction générale des élections jox leen waa ji ay fiches de parrainage am altine talaata àllarba lan la président Macky Sall li lay wan ci ay dérive président Macky dafa xëy jël décret violer complètement la loi sénégalaise xëy tax naa ci nu mu ko neexee dàq leen ñoom ñëpp indiwaat équipe bu bees en plein processus électoral. finalement lii du fi bees. du lu fi bees moo tax ma ni. alo ngeen ma ma ma dugg en contact ak Mbisantine euh, Mbisantine moom actuellement mu ngi en direct euh, ci assemblée nationale Mbisaan ma di la nuyu bu baax a baax. Mbisantine. allo way way Mbisaan na nga def baa ngi ci jàmm. way sant sant bu baax a baax. waaw actuellement yaa ngi fan ni hmm? ñu ngi en direct ci Sénégal set actuellement yaa ngi fan. pour nga defal ñu le point. Hmm. d' accord ah waaw. pont bi am na ay dagg-dagg yu ndaw mais comprendre na quand euh, lu waral euh, woote bi. en tout cas ñu ngi fii ci assemblée nationale mais aussi il dire que l'accès a peu. comme que defagul parce que d'abord ça a été barricadé force de l'ordre yi ñu ngi pointé ci point stratégique yi nga xam ne ni wër na assemblée nationale bu baax a baax donc man euh, dama accéder ak sama carte presse mais am na ay sénégalais yi nga xam ne ni aussi boo leen euh, jubee rek dañ lay teg ci yeneen yoon donc tey l'acte a été difficile mais aussi beneen constat bu ñu def Euh, bu ñuy euh, ñëw fii mooy tali bi libre na lool lool daanaka benn benn embouteillage amul loolu lu muy firndeel mooy ne tiitaange am na ci ñenn sénégalais yi nga xam ne ni tey jógewuñu seen kër daal di dem liggéey kon tiitaange boobu am na parce que d'habitude lundi tali bi da doon xat embouteillage yi bëri mais constat bi mooy la circulation et plus loolu lu muy wane kon mooy ñu bëri toog nañu seen kër di ragal ay jëye en tout cas bu ñu egg ci assemblée nationale nag euh, fii Euh, mbir yaa ngi waaj a tàmbali parce que député ñu ëpp ci ñoom ñu ngi ñëw euh, ñu ngi ñëw euh, topp di xaar travaux yi commencé normalement mu ngi waroon débuter à onze heures il est onze heures dix donc xam naa soreetul yàggatul dara kon waxtaan wi war a war a tàmbali. Hmm. mais missan sànq ñu ñu doon wax ne ñu député Yewwi Askan Wi bëriwul ñu fa ji sa gum ndax loolu lu wér la ci xibaar. moo waaw député dañ ne député yeewi askan wi ah bëriwul ñu nekk gum foofu noonu ndax lu wér la ci ci ci xibaar loolan la. waaw dafa mel ni dégg-dégg bi nag gars yi nag xam nga dañoo brouillé piste yëpp moo tax fi mu toll nii réseau yeeg yëpp ay compliqué sax pour nga jokkoo ak nit mais euh, laaj bi c'est c'est c'est simple mooy euh, sànq dañoo jot xibaar boo xamante ne ni dañ nañu député yaa ngi ñëw mais yu yeewi askan wi euh, ñoom ñi àndul ci mbir mi donc ñi ñu gis bëreegul ndax loolu am na ci lu wér. en tout cas kenn je pense que c'est Guy Marius Sagna yegsi na léegi donc euh, mais ñeneen ñi nag gisaguñ leen waaw ah. ñeneen ñi gisaguñ leen man daal en tout cas man Guy Marius Sagna rek laa nga gisagum ci député Yewwi Askan Wi mmh. sinon ñeneen ñi fi nekk ñëpp daanaka ce sont les députés te Benno Bokk Yaakaar et de Wallu peut-être am na ñeneen mais seenaguma leen en tout cas ku ma remarqué gis ko. Mhm. moom rek mooy euh, Guy Marius Sagna. Guy leer na jërëjëf naa ah, ñu bàyyi la nga yeggali yow ci travaux yi nga dugg noonu en tant que taskatu xibaar. jërëjëf Mbisaan euh, moom dégg ngeen li mu wax comme xibaar donc Mbisaan moom actuellement euh, kenn la ci suñu ndaw yi mu ñu defal liggéey bu ama am solo actuellement mu mu ngi ci assemblée nationale génn pour wax ak ñun parce que nee na accès bi c'est trop difficile voire même euh, donc gis nañu tamit nee na carte presse am carte nationale mooy bu presse bi ñu jox yi ñu jox presse bi d'une manière ah, ci ci wàllu euh, réew mi donc moom la utiliser pour mën a dugg mais keneen ku dul ñoom dugg bi dafay metti trop lu mooyul tamit député yi waaye député yi ñu ñu doon wax sànq nañu ah yu Benno Bokk Yaakaar ak yu wàllu yi ñoom ñoo fa ëpp donc déjà il confirme euh, l'info ba rax ci dolli yi tamit nee na waa Yewwi Askan Wi donc moom moom ci bëtam li mu gisagum mooy gii Marius dong la gisagum ah xëy na ñeneen ñi ñu ngi ci biir xëy na ñëwaguñu euh, lépp lu ci mën di am dinañu ko xoolal ba mu leer nañ mais travaux yi 11h la waroon a tàmbali mais ñu ngi ba 11h12 minutes nee na tàmbaleegul donc loolu moo moom moo fa si xibaar yi nga xam ne moom la ñu mën a rotee mais yee yaa ngi doon yaa ngi doon développe peut-être li Mbisaan wax peut-être ma bàyyi leen rek ngeen ngeen euh, donc mais mais ñun ñuy def lu am solo lii xëy na même bu fekkente ne waaye mooy euh, des les les députés de l'opposition yi ñu ci mel ni waa yeew yeewi mhm. suñ ci àndul itam war nañ faa mën a teew. mën nañ fa teew. parce que même amande sax. même même Guy Marius Sagna je pense que démb rek lancé. non moom moom waaw lancé woon na ne moom. moom ku ko fa dëgg nee ko Massa. oui dina fa dina fa teew parce que il faut ñu dem itam. parce que dem fa ne veut pas dire aussi voter li nga xam ne ànd nga ci quoi. oui et puis mën nañ proposer des amendements et l'histoire écrira quoi dañuy bind. te euh, l'histoire mi ngi suñu kanam. ak fu ñu mën a toll dans l'histoire de notre aussi. dinañ xamal sénégalais ni bi bañ jotee ba bañoon nañu mm-hmm. Mm-hmm. mais boo absenté da ngay jox beneen lay ñi nga xamante ni aujourd'hui ñu ngi assemblée nationale donc y a aujourd'hui am na confrontation bu ñuy xaar surtout non du am absence sax xam naa gars yi leen gisagul ak toog di rek non non mën nañoo nekk sax sur place waaw yooyu moom xaw ma de xanaa beneen côté mais yooyu moom gëm naa dina ñëw mais mais mais man li ñu war a voter donc ñu ñëwaat ci est-ce que c'est c'est c'est opportun ou bien euh, proposition bi est-ce que opportune na pour ñu war fee mën a nekk perdra temps euh, donc comme ni nga ko waxee Karim Meïssa Wade donc un candidat bu ñu war a tegee ne mooy est-ce que waruñu woon tegee ne candidat yi nga xam te ni ay mbuxum ak euh, ñun ñu nekk ci li ñu war a nekk. non non xam nga xam nga xam nga jibi jibi waaye waruñu woon nekk fii quoi. il faut ñu comprendre une chose gis nga gars yi juguñu pour mbir mi leer xam nga le président Macky Sall dafa théoriser démb ci discours bi mu def barki dem xaw mu dem. ni mbir mi il faut mu leer dañ ko war a leeral leer. mais ñaata yoon nga gis ñu demand def ay demande au niveau du du du bureau de l' assemblée nationale demande pour ñu ubbi ay enquête parlementaire bu doon leeral leeral Covid bi. oui mais Covid bi milliards ñu sàcc alalu Sénégal. mais maître Moussa Diop xamul fii un document. wan ko wan ko presse bi. Mhm. wax ay affaire armement yu ñu jënd. te ñan ñoo ko jënd présidence loolu est que jar woon ñu ubbi une commission d' enquête. toogu leen fii xëy gis ñu génnee ay ay 47 ñu yoo xamante ni ministère l' environnement daf ko jënd ci loolu yëpp questionnement yooyu yëpp soulevé ko te ki ko génnee c'est un journaliste étranger bu ko génnee ñaata scandale ñoo am ci régime régime bi depuis 2012 ba léegi est-ce que le président taxaw na ne nen mbir mi leer accompagner leen ñii ci demande yi ñu def enquête parlementaire pour que mbir mi leer alors que moom moo ñu fi digoon la bonne gouvernance la patrie avant le parti mmh. tey il a préféré les avantages les intérêts du parti au détriment du pays de de la de, de la patrie du moins la famille avant la. la xam nga yooyu yëpp théorisé woon na ko mais aujourd'hui la réalité est est tout autre on di aujourd'hui on vit aujourd'hui dans un Sénégal bu nga xamante ni kenn mënatu ko xàmmee kenn mënu ko ràññee ay guddi yu lëndëm mhm. maintenant mooy li ñu wax sànq tey est-ce que nécessité jaroon na wala waroon na ñuy ubbi une commission d'enquête par rapport à ça est que ci loo xamante ni nii yow ña même ñi ngay topp nee nañ la mbir mi du mujj fen le juge constitutionnel xamale leen nañu mbir mi du mujj fenn mais l'union l'UMS l'union des magistrats du Sénégal xanaa liiroo leen seen communiqué bi. Uh-huh. un communiqué tellement blindé ñoom wax nañ ni même li ngeen di def nii yëpp du mujj fenn parce que mënuloo leen dara. parce que ñoom bu leen neexee sax duñu duñu taxaw kenn du leen mais article 93 de la constitution nee nañ sauf en cas de plan grand délit. un magistrat bu am étude non non ay tappale la ay caaxaan la jusqu'à preuve du contraire man mësuma ko taxaw fii di sonal nit ñi mënuma ko gëm donc c'est compliqué finalement li lay wane ni lii caaxaan la tey bu fekkoon ni tey da ngeen di jàngat ci premièrement bi ñu demee ci contrôle de parrainage ñoom bi ñu jàllee da dégg seen i coow waay kenn déggu ko te pourtant y avait des candidats recalés injustement ñu yore coow li di wax déggoo ci PRS wax uh-huh. mais dem nañ ba décision finale bi ñu gé def une liste définitive génne wax ni dañu corrompre ay juge di pointer le droit à Amadou Ba mais man jusqu'à preuve du contraire je ne suis pas là pour défendre Amadou Ba mais gëwuma li ñu li PDS évoqué. non non boo ko waree défendre sax da nga koy. défendre xam nga nit mën na doon sa noonu sax. nga di ko défendre xam nga man lépp luy insiste dama koy défendre. Mm. forme bu mën a nekk que ça soit ñu def ko xalifa wala même Amadou Ba même Macky Sall sax bu ñu ko doon def injustice dama koy défendre parce que man si comme ça. Mm-hmm. xam nga dafa am lu nga lu Serigne wax léegi. Karim Wade ci boppam daa daa kàcc. <laughs> xam nga dafa ñëw ne moom benn nationalité képp la am exclusivement sénégalais mooy ay fen la dal Rose Wardini moo war a tege ci ndoddam mu ñëwaat loolu tegaat mu fenaat yeneen fen ne Amadou Ba moo nekk ci ginnaaw moo nekk ci ginnaaw Thierno Alassane Sall wax dëgg yàlla Thierno Alassane Sall ku waxam mën nga ko waxal tàng xoolal leneen mais di topp di maxar yàpp ci ginnaaw kenn bu ko doon def defal ko Macky Sall lan moo ko tàqaleeg Macky Sall lu dul bañ a def loolu kooku ngay fenal te boo taxee da nga xam ne kii la gën fuuf ëpp la courage mais yow nga ñëw taxaw man awma problème mu magistrat man pour man magistrat yeeg ñëpp yem ay nit a fi nekk même bu doon dañoo jàpp ne magistrat dafa ger wala nangam nangam pour man yoon la ñu yóbbu ko fañ ko war a dégloo mais nag immunité parlementaire ni ko mën a respecté les député bi noonu lañ ko war a mën a respecté les même magistrat bi. parce que du du da ngay ñëw rek mel ni tey benn saa wolof boo doon porter plainte muy daal dem du am na du def noonu. mais problème mooy boo ko xoolee ba xool ko mooy li mu wax da du dëgg. andiwul preuve ay début de preuve la wax ci ay fen la ko teg te nit ñëpp même yow sa xel da nga xam ne kii day fen. léegi nag problème bi mooy lan moo tax mbir mi kii foofu ngay xamee ne du ci dara maanaam moom. soo ko ci bëggee jox benn rôle sax di ko jox gëdd day mel ni Karim Wade dafa tekki dara wala yu demee noonu fekk du ci dara moom pion la bu ñuy dox marionnette la bu ñuy manipuler loolu moo ci moo moo ci nekk kon bu ñu ñëwee tey Macky Sall ànd ak loolu yëpp parce que li bëggoon euh, gars yi spoliés yi bi mu leen ñoom bien sur ñoo ko bind mais bi ñu koy bind dañu war a xam xam nga foofu sax laa ja jaa jàkkaarloog Bougane bi mu taxawee di naan Mimi Touré moo dañ ci ñuy bind la bokk bien sûr kañ lañ bind. mais avant conseil constitutionnel di di di di di di di wax candidat yi bii mooy dem wala nangam ak nangam liste définitive bi di génn boobu chef de l'état xaj na mën na àddu wala leneen leneen mais bi conseil constitutionnel àddoo ba pare ñu ne dañ leen di recevoir Mimi Touré daal lànk buggaan dal ci kawam ba pare te moom mujjul dem. waaw lu tax demul woon boobu léegi ñoom ñu dem ña dem dem ci Macky Sall la leen mag la Macky bëggoon ñu wax ko waxuñ ko ko. <coughs> Macky moom tamit ne du leen ko waxal daal di ne pat daal ne élection yi day am dañuy respecté décision de justice. Mhm. Euh, li li tukkee ci kii. loolu nag mooy li mu respecté wul te loolu mhm. war na même moom day wane loolu parjure la. Mhm. wax lu dul dëgg la. d'accord xam nga dafa am loo xam ne lu ne fàng kenn du fi toog di ko jeex. te gis nga li am nit ñi dañ koy wax dañu indi ay tappale yépp askanu Sénégal. yàgg koo yépp c'est le moment au jamais askanu Sénégal. lijjanti parce que ci la ñuy doxee respecté ñu ba faw parce que dinaa rappelé waat gars yi mbir yi nu muy doxee tamit. Hmm. ba tey ci projet de loi bi. <laughs> ba joxaat gars yi ndax dama leen di fàttali parce que am na ñoo xam xëy na léegi lañ dugg ci direct bi pour ñu xam ne euh, projet de loi bi bi ñuy soumettre actuellement les députés daf ci am ñaari article yoo xamante ne ni yu ama am solo la. Hmm. benn bi mooy dérogation à la constitution qui repousserait l' de six mois yóbbu ko ba vingt cinq août ah beneen article boo xamante ne nii day demander Macky Sall di njiital réew mi eh, war a génn donc mu poursuivre ses fonctions de président jusqu'à ce que ñuy installer keneen mooy ñaari article yoo xamante ne nii yu am a am solo la waaye nag ah 2 euh, avril moom mooy date bi nga xamante ne nii moom la ñu jàpp ne ah euh, Macky Sall mandat bi am waaw moom moom pare na pour nekk njiital réew fii ci Sénégal te loolu loolu loolu gisuñu ko ci ci proposition wu loi bi bi nga xam te ne war nañ ko examiner boole ci ak adopté léegi tey ci ay waxtu yu néew donc moo tax lépp lépp li muy ubbi mooy possibilité wu reporter l'élection ah six mois euh, ci kii di Macky Sall mën na sax gën a bëri six mois mun na dem ba at parce que loolu moo tax opposition bi. ne non cinq ans sax mën na ko parce que amendement la rek. bu la neexee nga amandé ne nañ ko dolli beneen mandat ñu bëri naan coup d'état constitutionnel. Ah, non benn fan kaa xam nga 15 minutes de trop. le général de Gaulle doon wax te xoolal kañ la ko général de Gaulle doon wax. Mhm. bàyyi da de 15 minutes de trop dafa ne maanaam mandat waruñ cee dellu 15 minutes dolli ci 15 minutes ak dolli ci 5 ans ñoo yam. man moo tax ñoom nañ laaj lu leen neex nañu def li leen neex mais en tout cas askan waa ngi leen xaar. Mhm. ku yaakaar ne xam nga ku dul xalaat boo votee loi ba pare lu la neex defal. Mhm. ku dul xalaat xam nga Macky Sall daa wax barki démb nit ñëpp xam na lu mu wax du yoon. Mhm. mais bi mu waxee déggoo dara. Mhm. nit ñi xëy suba ne dañuy campagne parce que dem campagne yi mooy yoon. mais ku yaakaar ne yow man dama lay yónni jox la sama euh, kii nga war ma doxal commission nga dem yegg sàcc xaalis bi man après nga bëgg man ma toog loolu la. maanaam dama laa yónni jël sama yëf ne la demal defal ma nàngam nga nangu ne danga may defali nàngam mu député yi nga dem war maa defal nàngam dem jël sama nàngam jooju jox ko keneen mais loolu sàcc la usurpation la lu nekk la mais man mi ko def man da ngaa damay toog di xool man askanu Sénégal loolu moo fi nekk gis nga problème bi mooy. Mhm. fu bari maa ngi dégg gars yi en tout cas Sandaga moom soriwut ensemble te am na image yu ñu gars yi di di di wan nii. loolu du ma ci du ma ci yegg. Mhm. mais daal li may wax moom sénégalais yépp di ko lancer appel fii. tàmbalee ko ci màgget yi am juróom-ñett fukki at parce que problème mooy xubbul watan minal iman. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. bëgg sa réew bokk na ci jaamu yàlla taxaw sa réew. Mhm. sa sa réew wootee nga dem demal ko. dafa bokk ci jaamu yàlla. kon nangeen di jaamu yàlla yor seeni kurus di pàcc pàcc tey. dem wàcc ci terrain bi. bu boobaa jaru am na nu lim bii toll du jar toj du jar taal xanaa xamoo taal ak toj ak sànni xeer yi yëpp anéantissement la gis nga boo gisee force de l'ordre lan la ñuy yor grenade lacrymogène pour anéantir la ba nga xam ne doo mën a atteindre sa objectif maanaam grenade bi tàkk na xeeñ doo mën a jege pour loolu la même xeer yi manifestant yi di yore ñoom tamit dañuy anéantir force de l'ordre yi comme ça bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu yegsi mais bu la wóoroon ne léegi lim bi dafa pare takku ay millions yi nit wàcc tey